bokki jullit yu tedd yi bokki taalibi yu tedd yi maa ngi dellusi di leen nuyu ci seen tur ak ci seen sant di leen siyaara ci weer wu tëdd wii nga xam ne ci lañu sóobu di weer wu mag di weer woo xam ne ci sunu borom tabaaraka wa taala baaxe jullit yi ba wàcc ci alquraanul karim chahru <coughs> ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaas téere bu tedd booba nga xam ne mooy gindi mbindeef yi ci la ko sunu borom wàcc ci weeru tedd wii ngir jubal doomu aadama yi di weer woo xam ne chahru rida war rahma weeru ngërëm la weeru yërmande di weer woo xam léppam xeewal la léppam ab tereet la weer woo xam ci la sunu sang bu ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa wasatuhu maxfira wa axiruhu itqun min annaar weer woo xam ne njëlbeen gi yërmande la joge ci sunu borom tabaraka tabaraka jëm ci mbindeef yi ak jullit yi digg bi di ak njëggal ñeel jullit yi mujj di goreel ci sawara kon weer wu tedd la sunu sëriñ di sunu yaakaar tey ëllëg di mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim ridwanullahi alayhi wa nafaana bi moom mu sargal weer wi santaat sunu borom tabaaraka wa taala ci baaxe gi mu baaxe julli di ba andi guddi guddi gu tedd gii nga xam ne ci biir weeru koor la ko sunu borom andi ci la sëñ bi waxee ne alhamdulillahi jibi dil qadar man qasana fadlan bi laylatil qadar mu'azziman li sha'niha fi dahri hatta xayran min alfi shahri suñ baa ngi kañ sunu borom di sant sunu boroom mi nga xam ni moo andi ngëneel yu tedd yii moo indi ngëneel ci guddi gu tedd gii di guddi lay laylatul xadar Sëñ Tuubaa wax ne sunu borom ci boppam moo màggal guddi gi ba tax mu def ko guddi goo xam ne jëf joo ci jëf mooy wecc jëf ko ci junniy weer di juróom-ñett fukki at ak lëf kon nag nuy profité ci weer wi ak guddi gi nu dëgmal di ci siyaare bokki jullit yépp di ko tàmbalee ci sunu kilifa bopp di Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadul Muntaha xafidahullahu wa raahu di ko ci siyaare bu baax di ko ci ndokkeel bu baax di ci ñaan sunu borom tabaaraka wa taala al aliyul qadir mu yàggal ko fi te may ko wér ba lépp li mu yéene liggéeyal waj wajuram yu tedd ya yéene ko liggéeyal maamam ju tedd ja di Cheikhul Khadim yéene ko liggéeyal ak tariqal muridiya yéene ko liggéeyal diine islam mu def ko nam ko bëggee di jëmm joo xam ne moom a Cheikh Mouhamadul Muntaxa taarub yoon wi la taarub lislaam la di jëmm joo xam ne sàmm yoonu sëriñ Tuubaa yi taxawu njabootuk sëriñ Tuubaa yi taxaw diine islaam te sàmmit li nga xam ni eh, bokk na ci li gën ci mbindeef yi muy xam-xam mënees naa wax ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa bu amoonub tool toolam mooy xam-xam alhamdulilahi rabbil alamina sunu borom boole na ko ci borom xam-xam yu mag te xam ngeen ne borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonente yi ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ulama warasatul anbiya xam ne bu bu ñu bu ñu sëñ bi lu ko tax a jóg ñu ne lii moo ko taxa a jóg mm-hmm. muy fi mu waxee ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu xam ne sëñ bi moom dafa définir li ko tax a jóg ba li ko yitteel mooy ñëw yeesal defaraat rénové sunna sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba képp ku bëgg a àgg ci sunu borom bi waasitati rasuuli sallallahu alayhi wa nga mën ci àgg yoon woowu Sëñ Tuubaa xàlloon Sëñ Muntaxa bokk na ci jëwriñ yi koy taxawu waxtu wu nekk di ko leeral waxtu wu nekk ni mu ko baaxoo defi waxtu weeru teroo wala muy bëgg a teru daan dem ci ki fi nekkal Sëñ Tuubaa di kenn ci magam yi laajaat la ndigalul ndax day wéyal liggéey bi wala déet waaye bu ko masaa def ba am ci ndigal ba noppi ndax may boo ma ñëw mu ne ma demal ma ci sama doom ji di Cheikh Mouhamadul Muntaxa daanaka am naa ndigalul njabootuk sëñ Tuubaa gi kon sóobu ci liggéey bi mooy li des waaye bala nga ciy sóobu da dem ba ci sëriñ Muntaxa waxtaan ceeg moom. mu wax la na na mu bëgg nga doxale ko ci biir ak ci biti ci tàmbale ba ca mujj te booba cër yi nga xam ne moom la sunu borom def ci moom ak cegul ci moom te mun taxa rafetlu loolu lool ànd ak mbégam ànd ak ànd ak mbégteem ne ma defeel nii defeel nii defeel nii waxeel nii waxeel nii waxeel nii loolu moom fi nekkoon naka jekk ba yàlla def tey mu toog ci jataayub sëriñ Tuubaa nekk nekk sëriñ Tuubaa loolu moo waral noonu soxna si baaxoo def ci bi mu làqoog léegi di ñaar fukket ak benn ndax ren mooy juróom ñaar fukkeelu ak benn bi soxna si tàmbalee léggéey bi defal na ko boppam ci jëmmam ju tedd ja juróom fukki ak benn yàlla def bi mu làqoo ak léegi def nañ ko gannaawam ñaar fukket maak sama mag ju tedd ja di sama lépp di sama wëllëre di jaaratullahi mariam maam busum baali mbakke rahmatullahi taala alayha bi nga xamante ne dem naa ba wax sa suñ muntaxaa loolu mu ne ma yeesalaat naa ndigal li danaa leen ci ñaanal ba yéene ju ngeen ci am ngeen jëfe ko nu kawe seen yéene ne daa cee teg ne ma nag te ngeen xam ne liggéey ba bépp maa ngi maa ngi yow ak maa ngi yéen noo koy ànd ci biir ba ci biti di feddali li ñu seq ci bokk na ci la ma ci gën a ñor mooy taale bi gi ñu seq ndax nun ni nu boroom kër gi yare mooy doon taale bi sëñ Tuubaa te ku fi nekkal sëñ Tuubaa ku ne nu jël sunu bopp jëlug buum def ci sunu baat jébbal ko ko fi nekkal Sëriñ Tuubaa kon maa ngi fedd lool ci Cheikh Mouhamadou Mountakha di fedd li bokk gënu seq ci fànn yëpp di ko xamal ne ko njaboot ak soxna may mun a Mbàkke di fas nañu yéene ba bañu koy fekk dañuy tënku ci doon ay jullit xàqan doon ay murit sàddiq di wéy ci ndigal ko fi nekkal Sëriñ Tuubaa loolu moo sababoon néew na fu ko waay fekk te fekk mu yor kaamilub alxuraanul karim di jàng wala bu yorul kaamil bi di jàngit ma koy tari loolu moo doon moo sababoon fépp fu daaree alxuraan ne rawatina ji ci yii ci biir dëkk bi ak jamono bu mën a doon ak ku fi mënoon nekk alxalifa dundug daaree kaamil yi naka jekk moo ko gàddu woon di ko def di sant bokki taalibe yépp ni ma ko waxee bokk yi nañu xam ne fii seen kër kër gi seen kër wajur la kër gi seen seen kër sëriñ la kër gi seen kër bopp la dafa tolloo kër faw mu am li ñuy tuddee ka koy wattu loole lañu jàppe sunu bopp waaye njabootu sëñ Tuubaa gépp noo ñoom noo yem ci kër gi kon nag bis bi seen bisu bopp la naka noonu mboolem taalibi sëñ Tuubaa yi ñoo xam ni soxna may dafa da leen a boole woon ci noonu ñu jàppi seen bopp def taalibi sëñ Tuubaa noonu la soxna may defoon boppam taalibi sëñ Tuubaa dundam gépp da ko jeexal ci liggéeyal sëñ Tuubaa dundam gépp ma def ko ci sopp sëñ Touba